deze é bom. Vou até. Time bom. Logo isso é que estamos avançando. Então, não diga para o Wax, que era. Vai ainda para o Wax que era. Então, não vai mais. zone temps yi ngay foofu. waaw temps yi moom. temps yaa si forme quoi. temps yi moom lamb ji laa laaj. lamb ji mais man laajuma ay ñoom ay ñoom konaa yooyu mbëri ndaw yi. ñoom taxaw mbër yooyu. man ak ak ak ay ñoom ñoom limousine yooyu su ko gàllankoor kooku ak ñoom Martin ñooñu di ànd ak man non ñooñu soxla ko de ñooñu moom mu ca am lu man man jaay fii laa VIP hmm. am na benn boy bu dëkk Pikine la uh-huh. bëri soof yi ñu koy soofal xaw ma amaa lañ jox xaw ma amaa yi ah, amaa Balde ñu jox ma defaral ko bagage ci lu gaaw amul ay amaa du caaxaan <laughs> ay jàpp non du ko may loolu sax ah bon samay maay jéeri samay eh, mawaasi jéeri samay ura mawaasi laa koy dóor saa waay jàpp kon de MMA lay rek quoi <laughs> waaw ah, Pikine nañ ma moytu de écurie yëpp sax nañ ma moytu waaw Parcelles. Mhm. Guédiawaye Thiaroye eh, eh, Tëngéej. Mhm. Ndakaaru écurie yëpp daal nañ ma moytu d'ailleurs sax may wàññi créé benn écurie bi écurie si dëkk. si dëkk góor gi. <laughs> écurie si dëkk góor gi boobu moo tax ci écurie. waaw boobu. <laughs>